jamono ji lu jëm ci Macky Sall mi jiite woon réew ko Sénégal moom moome indi na ay tontu ginnaaw ba Ousmane Sonko waxtaane daal ne mbiru ko finance publique ci réew ko Sénégal chiffre dañu leen dal di falsifié tey ji ah, Macky Sall nee na fàng ci ëttub l'enquête yéenikaay dal ci nag indi ay tontu jàpp leen nag ne loole ab contre attaque la yëglekaay bi daal di rek ah, daal di fësale nagani ji jàpp leen daal ne lu ne mel bokk na ci lañ muy xamle ca xët wu njëkk yéenikaay bi Euh, moom euh, Macky Sall daal di fa fasal daal lépp loo xam ne daal moom la fi bàyyi woon moom may ab moo xam ne euh, lépp a ngi daan dox ci jamono ji nga xam ne daal ma ngay dem ba tax na jamono ji lépp loo xam ne Ousmane ko moom la daal di fësal ci mbirum dette publique bi lay jàpp na ne dara amu ca loolee itam tapp na ci rek dellu seem ci làngu ko politique yi jëm ci woteeg législative yi ñu nekk. Vox Populi yéenikaay moom ci xët wu njëkkam nee na nag kàddu yi leen dara amu ca ay ndaxa saxandang kott la Macky Sall tontu na Ousmane Sonko ba noppi di gën a ñaawlu sax anam yi nga xam ne daal la ko defee moom Macky Sall la mu xam ne moom mooy ab audit daanaka amal nañu ko loolee sax mu teg ca ne ba léegi daal xamuñu lan mooy njeexitalu ko audit boobu rawat ne rek conclusion ya jàpp leen daal li Euh, ministre ñu daal di incriminé maanaam ñu duut baaraam nag ci lu ni mel boobu léegi amuñu rek benn accès ci information yooyu lee moom Macky Sall ba muy dem boobaat benn coow amu fi leen nag ne résultat investissement yi nga xam ne administration am jot na koo def jamono ji jàpp na ni lépp leer ba ku nekk mën nga cee teg sa bët moom la mu ca waxtaane sax bokk na ci rek ni jamono ji Ousmane Sonko roube kott la ca nekkee jàpp leen daal ni moom Macky Sall ci wet gi nee na dellu seem ci langue politique bi li ko waral moom mooy bëgguñu rek a bàyyi xale yi le ñu daal di rek teg Sénégal ci li nga xam ne nii moom mooy yoon boo xam ne daal daan leen jural ay jafe-jafe. ñu ubbi l'indépendant yéenekaay bi ñu xam ne daal la mu ca tappte ji moom mooy euh, Macky Sall waas na Ousmane Sonko ba bàyyilu ko dara jamono ji mu toll nii ñu dootoon ko baaraamu tuuma ci loole di yorin ku bon moom daanaka ñuy waxtaane sax loole di wàllug chiffre ya ñu falsifié dette ak déficit budgétaire Macky Sall tontu na naqarlu bu baax a baax remarque yi nga xam ne ñoom ñoo tukkee ci limaanu jëwrin yi le jàpp daal ne Sénégal ba mu fiy jóge boobu lépp ngi dox daanaka lépp yemboon na ñëw bi la tribune yéenekaay ci ponk bu ni mel mu ñuy xamal daal ne kàddu Ousmane Sonko dara amu ca la mu yëkkati daal boobaak léegi amul lenn loo xam ne daal taxaw na ca moom ba mu fiy bàyyi daal boobu lépp yemb na résultat investissement ci administration nag lépp ci leer ba tax na jamono ji daal waruñu daal dugal seen nag biir bopp ne loolee nga xam ne daal moom mooy développement mënees nañu ko def te duñu am ay bor critique yéenikaay moom nee na poker menteur la nag diggante Sonko ak Macky Sall jàpp leen daane loolee la waral moom mooy tuuma yi nga xam ne Ousmane Sonko gàll na ko rek ci ndootub gouvernement bu Macky Sall jamono yi mu fi nekk ñeel wàllug chiffre budgétaire yak lépp lu ca daal di euh, génn jàpp leen daane Macky Sall patt pattaral ko mu nekkoon loolee jeexal na ko tàkk ndaxte yekki na ci ay kàddu daal di cay indi ay leeral buñ ko xayma fi ñu toll nii nee na daal jamono ji ñoom ñooy jiite yëf yi ndax moom ba muy dem booba wu fi benn coow le peuple yéenekaay nañu Macky Sall yóbbu na Ousmane Sonko nag ci li nga xam moom mooy ndorteelu ko économie maanaam fa ñu koy jàngee ca béya baaya moom naqarlu ay kàddoom ba noppi rek daal di cay teg ne eh, bu ñu jaawaat la rek li nga xam ne moom mooy lépp ngir daal di financer développement waaye tamit. waxtaanee loolay ay bor yu ëpp maanaam surendettement moom jàpp na rek ne jamono ji ay investissement daanaka ba ñu koy leb bu ñu koy def jàpp leen daal ni fi ñu toll ni ñoom lépp loo xam ne tëraloon nañu ko ci wet googee amuloon benn jafe-jafe. l'observateur di ñu waxtaanal tey jii ci soxna su am jafe-jafe ak yoon kookee du keneen ku dul Ndella Madior Diouf jàppale ndaat ni moom ca fa ñu ko teg loxo jamono ji Ndella Madior dafa mel ni daal jafe yi ñu ngay wuy ci moom bouclage ko dossier ma xaar li nga xam ne daal mooy ab procès boobaak léegi mu nga ca changé nañu ko ab cellule waaye tamit li ñu gis moom mooy Safir FM mi nga xam ne daal rajoom la ñoom tamit noppi nañ daanaka kenn déggatu leen bu ñu sukkandikoo ci l'observateur yéenikaay la mu cay waxtaan ci suufu yéenikaay bi moom mooy Podor ak Saint-Louis ñoom tam ñu nga ca jafe-jafe ndax mbënn bu métti bi nga xam ne daal am na bu ñu moyut sax jamono ci barrage ba bu bàyyee daal mënees na rek gën a yokk coow lu ni ba tax na ab plan d'alerte AMVS nga ca jamono ji lu ëpp nag téeméer ci ay gox goxaan daanaka daal xool nañu ko ndax ñoom ñëpp ñu ngi rek ci wàllu kay jafe-jafe coow loole tam seetu nañu ko ah, ca booruk Bakel Walf Quotidien ni kaay moom moo xëy ne ko fàng ci xëtam bu njëkk ba tax na sax mu nañu ubbitee fukk l'école am na jamono ji waaye daal li ñu seetlu moom mooy ah, l'école yooyu la sax lañu bàyyi ñenn ci askan wi ne ci jafe-jafe ñu daal di fay dëkk Anta Babacar Ngom moom daanaka yëkki nay kàddu tam jëmale ko ci référentiel bi nga xam ne nii gouvernement bi jot na ko fësal moom naa nag seen wax ju bari ji yëpp daanaka jurul dara ñu ubbi libération yéenikaay moom xëta mu njëkk la mu fa xëy dëxëñ bokk na ci rek jamono ji li nga xam ne jëm na ci mbiru titre foncier 1450R jàppale nag ni loolee buñ koy xayma rek parquet financier moom mu nga cay dugg bu baax a baax la ko waral nag bokk na ci ab plainte boo xam ne daal jot nañu ko déposé ay héritier fa Ousmane Mbengue ñoom ñoo amal lu ni mel visage de faux Sadio Mané daanaka làpp na moom kott ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Malawi loole nag mu ngi ko amal ci njeextalu jongante ba Sud Quotidien ni kaay nag nañu ab ku kaw la mel ni sax ab dóor mu daanu la te ci ab coup franc la tukkee. Sénégal qualifié ca Coupe d'Afrique des nation bi lee loole nag buñ koy xayma rek nekk na jamono ji fukk ak juróom-ñetteelu ko qualification gayndeek Sénégal ci ab phase finale bu Coupe d'Afrique de Nations waaye nag yëf yi jeexagul ci bilek groupe L ndaxte jàppale nag ni eh, lii di eh, Sénégal ak Burkina ñoom ñoo fas yéene football final ko groupe bile bur xool kat mooy fas yéene jeexal ci place bu njëkk gi loolee ñu ko nar ko amalee ca boru ko Côte d'Ivoire fukki fan ak benn ci weeru novembre bi ñu jëm Pape na Thiaw moom li ci leer ba leer moom mooy nag la ñu ko santoon def na ko kon mission daanaka accomplir na ko lii mooy lu tuyee ne kaay xew fësal tey jii nii. fël la bu baax a baax mbokk yi di leen ñaanal ngeen jàngat ko ci kaw jàmm ak salaam Grégoire ñu joxante di daje ba lëkk incha allah. ci yeneen jërëjëf jaajëfal ko bu baax a baax moom Grégoire Ngom mbokk yi des na ak ñun léegi léegi ñu gën a yaatal xibaar yi ànd ceeg Kajoor ak Pape Malick.